Abou Thioubalo la maa ngi leen di nuyu baax a baax ah Sénégal kenn <clears throat> tey ñu ngi fii ci dëkk bu mag bi nga xamante ni mooy na fu ne gaa ngi fay fëlee fu ne gaa ngi fay fëlee nee naa la fu ne gaa ngi fay fëlee bu ñu la koy wax nag mooy ñëpp nañ jàpp ni actuellement ñi ngi nii en face jumaa ju mag ji nga xamante ni moo tax ñu naan na Niass maam Léona Niassène dëkk la boo xamante ni dafa dem ba lew boromam ñu jox ko ne ko Léona te su ma juumul kër gii nekk sama ginnaaw bokk na ci kër gi njëkk jox sëñ bi su ma juumul sëñ bi nga xamante ni moom moom moo ñi njaboot gi mais loolu bu si kanamee lañ ciy egg parce que moom moo doon ànd ak maam Khalifa ñu jox lii muy euh, sama yaay euh, Sana Dieng yaayu Amet yàlla dogal mu juddoo fii ci kër gi kër gi ma dal ni fii la sëñ Mahi Niass juddoo sunu papa jooju moom it kon fii ma taxaw yaakaar naa ne kenn ëppale wu ma ñëw naa ci affaire bi euh, di wax Sénégal yëpp ni ñëw nañ ci jàmm depuis trois jours ñu ngi fi mais liñ gis Kaolack ren sérieusement parlant nag innovation yi am na quoi mais li ma gën a yéem mooy lekk gi doy na naan gi doy na mais ku dégg bu baax a baax ku am dégg-dégg xam ne liy réer fee ci ginnaaw mooy ñi ngi sant yàlla bu baax a baax laa ilaha lalaa nga fiy dégg alxuraan gu sax lañ fiy jàng te lii mooy Sénégal su fekkente dañoo nekk ci luñ maam neex. dem ba ñu yee ñu benn jour nañu juddu yonent bi kat mu ngi jege si nu ko ñëpp waaj kenn ku si nekk boo koy waaj li nga koy waajee mooy dajale la nga am yëpp pour def ko ci guddi yonent bi. abu ci bolo nag looloo tax mu déplacé wu ñëw jël ay woy tegee ko ne jël ay caaxaan tegee ko ne jublu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey nag mu leen di xamal ni tey sama tournée man fii biir Kaolack mooy fii ma nekk comme kër sëñ bi la mais dinaa fi jóge de seeti Baye euh, doomu Baye Niass bi ko seeti ku bëgg gis lalu Baye ñas lal bi nga xamante ni fa la feebaree ban jëlee ko fii Sénégal yóbbu ko Londres mu wuy ji boromam ku ko bëgg gis gis fa Abou Thioubalo xamal ne naa fa dugg bis kanamee tuuti. parce que man su ma ñëwee bokkuma ak yi nga xamante ne dañuy caaxaan di wër di taxawaalu déedéet man su ma damay def li ma war du fi nekk di taxawaalu damay toog ba mu sedd guy ma dem dugg ci xabru sunu papa Sidy Lamine Niass Sidy Lamine Niass mi nga xamante ni moo doon jàppale diñ dimbali te yàlla tax doon yëkkati àllam duñu ko jox. tey mi ngi nii tëdd fii soriwuma dara kon man sama dal gëm naan ne bokk na ci dal yi gën a neex bu si kanamee nag dama leen di jox rendez-vous incha allah rabbi la <laughs> Vai!